jaxate la di mhm. euh, ab donga daara di sëriñ daara bokk sëriñ daara yi nga xam ne ñooy taxaw liggéey bi ci ahlul xidmat yi ànd ko ak suñu bokk jigéen yi ñam ñii mbooloo moo xam ne nag dañoo law ci dëkk bépp ndax fi mu toll nii ma lay wax yaakaar naa ne dem nañ ci ay quarante nangam ñoo xam ne ay sous section la ay ay jëwriñ leen ay ndey daara yoo xam ne samp nañ leen ci dëkk bi ci quartier yëpp ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu yor boot ay daara yu bari boot ay ndey daara yu bari yoo xam ne lii mooy seen liggéey te mooy fexe di leen fóotal fexe ba di leen seen wàllu dund ñu yore ko li ñu seen yéene mooy benn dong boo xamante ne bii yaa ngi ci Touba duñ la gis ci mbedd yi ngay nga yalwaan wala ngay wut leneen dong yëpp ñoo xam ne ñoom ci daara yoon yelloo ñu bëgg saxal leen ci daara yi loolu mooy seen liggéey nga xam ne li ay seen dund ñoom ñoo ko yore ndax xam nañ ne bu dul loolu dong yelwaan ñoom ñoo leen di sarax kon nag ñu organiser ko ba nga xamante ne bii dañuy jël ay bool yi ay bool yi daara yu bees jox leen ko ñoom it saa ñu jëbal leen yóbbu seen daara nga xam ne dong dañuy mën a jàng tranquille yi ñu am benn problème bu nekkoy dem jël seen añ dem jël seen reer jël seen ndekki dem toog jàng kon loolu yaakaar naa gi it kasaalika moo tax sax bi nga xamante ne nii euh, lii xew-xew na ci muy wàllu wéré di nga xam ne wàcc na ci àddina bi ba ak si Sénégal ba ak si fii ñu xam ne képp koo xam ne yaa ngi jóg di dimbalee daara yi da nga leen ci fekk ndax am loolu mooy seen liggéey bu dégg bëccëg tuuti sax loolu mooy seen liggéey ñu ne kon nag ñoom itam war nañoo gën a feeñalaat kon nag gën a yokkaat seen i jéego baax a baax loolu moo tax tey ñu fàggu lii seen i dërëm ak seen i yoo xam ne ñoo ko dajale wutuwuñ ko fenn kenn joxu leen ko ñoom ñoo ko dajale seen ñàkk bopp ñëw ne dañ koy jox daara yi dimbale leen ko ci wàllu set gi ngir xale yi ñoom itam li euh, ma ko waxee rek ñoom itam kenn gën leen war a set leen a war a mucc kon loolu mooy euh, liggéey bi tey ñu ànd ko ak suñu mbokk sëriñ daara yi nga xam ne ñoom itam ñoom ñëpp dañoo taxaw laxasaayu nekk ci kanamu jigéen ñi ngir leen jàppale bu baax a baax a baax bañ gën a mën a ñame waa sant it ñu leen sant bu baax a baax ndax ñoom it ñu ngi jàppale ci liggéey bi ndax xam nañ ne mbootaayu daara yi ñoom dañuy liggéey ci lool ndax fi mu ne xuma la seen pause mi ñuy def ak euh, tibb gi ñu tibbal ay ndab daara yi waaye dañuy i dërëm ak seen ñaar dërëm ngir lan dong bu tawat ñu mën laa ci en charge faj comme ni nga xamee ne noonu la ko suñu mbokk njëriñ mi defee dem ba àgg ci ñoom xuma la faj dong yi waaye di leen tabaxal ay poste sant santé sax waa njëriñ mi ngi koy def ñu xam ne waa Njaareem bu ñu mënee benn waa Tuubaa mën nañu fukk yoon lañ man moo tax ñoom it takku nañu baax a baax li gis ni ko waxee euh, yëlwaani wuñ ñoom ñoo ko dajale seen ñaar dërëm ñëw jënd ko muy wëlooru bu am solo ngir jox ko daara yi ko dong yi kon waa santé yi ñu ngi ñu ngi jàppale ci loolu loolu moo tax tey jii euh, docteur Dieng nga xam ne moo jiitee wàllu pàcc yi euh, région bi yaakaar na mm-hmm. moom yebal nañu ay bokk yu am solo yuy jógee ci euh, dispensaire bi ci poste de santé bi ngir ñu ñëw ngir gën ñoo mën a yee ci naka la ñu war a mën a taxawee ci euh, wàllu wér-gu-yaram xale yi ak seenu set ba ñu gën a mën a dund ci dund bu bu bu ci ayib. waaw dëkk bi ñun daara di am rafet ma jàppoo ngir jàppale daara. daje bi de li ko waral mooy ndey daara yi ñoo daje ndax daje bi tey yaakaar naa ne jotut tey ndax dañoo dajale di def suñuy concours di dajale weer na juróom fukk pour di fóotal donga yi di ci setal daara yi. di taxaw loo xam ne nii manqué na ci daara yi tam day daara yi dañ ciy jàpp ba génnee lu bari ci daara yi ndax foog naa ne xeex nañ napp bot di yolwaan xeex nañ daara yu tilim xeex nañ sol yére yu tilim loolu mooy tey suñu taxawaay fii ci bu baax waaw jàngoro ji ku nekk xam na ne li koy xeex mooy set te set nit ki bala nga ne ko setal da koy jox lu mu sete moo tax tey ñu dajaloo jël ci li nga xam ne am nañ ko jënd ci ay saabu ay madaar ay omo lépp loo xam ne nii dina dindi lépp loo xam ne ni day gàllankoor di xeex jàngoro ji moo tax ñu ay jafe-jafe sax ndax mbirum yàlla moo mel noonu ndax loo jóg di ko liggéey am na ñuy gëm am na ñuy weddi am na ñoo xam ne nii pour nga laaj leen ñu joxe waaye nag ñun li nga xam ne moom la ñu gëm rek mooy taxawal lu baax dëkk bi mooy xeex santé xeex tilim xeex jafe-jafe daara ndax foog naa ne dañ ne set ngir ah, xeex feebar bi waaye ñu ci ñu fekkoon ndax daara bi nekk ak ajjuma ñu ci bari danañ fóot danañ setal daara danañ dem ci taxaw dongay di tibbal dong yi fii tibbay suñuy añi kër ak lépp nu dong dutu ti yore te ndab lu tilim dutuñu ko saraxati ay des loolu lépp ñun mooy suñu taxawaay comme ni ñuy taxawee nga xam ne nii tey feebar bi kenn ku ci nekk xam na ne ah li nga xam ne moo koy joxe li ñu kii mooy ñàkk a ah, ak cet ñàkk sàmmonteeg ceet boobu nag moo a ñu ñu jóg tey taxaw fii fas yéene eh, jàppale sëriñ daara yi ci ruub tànk yi jafe-jafe yi ñuy am nag mooy moom soo jógee di liggéey moom ñii dañuy nangu ñii bañ rek ah bi naa sut tax bi naa waaye nag booy liggéey yàlla moom doo seet ña gànt da ngay seet rek yow li la dëgmal li nga dëgmal rek mooy lu baax ndax boo dëgmalee lu baax foog naa ne bu ñett gàntoo tey bu subaa ñett ñooñu dina am ñoo ko yàggee jafe-jafe dina dégg